jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba bamba yaay sunu assurance. bamba. say ndimbal raw ay finance. sëñ yow la nu jox sunu confiance. jaajëfati xaadimu rasool. am la moo am ay licence. bamba. weddi laa doy na ñàkk chance. sëñ bamba. doo concurrence. mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laanu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool Cheikh Bamba moom non violence Bamba la woote di jëf ne silence sëriñ moo tax murit amul tendance nañu sant Xaadimu Rasuul sag wàllu raw na ambulance Bamba sag dégg raw na fréquence njaare ma doonoon sa résidence surveiller ci Xaadimu Rasuul tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne woon daan la offense sëñ bamba yore wuloo woon benn défense budul yoneen xaadim rasool yaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir balaa dara ma lay nuyu yéen ñëpp journaliste yeeg mbooloo mi fi teew tey di sant boroom tey mbooloo mi fi fekk doy na waar te lii rek day wane ne sëñ Touba amul moroom taxawaayam ci senegal dafa nekk lu ama am solo. li tax ñu teew tey dañ di doomi njaareem xam bés bi li muy signifié njaareem taxawaay bi mu ci am donc dafa am solo tey liggéey bi lu mu bëri bëri ñu arrêté ko ñëw ànd ak mbooloo bi wane ne gouvernement moom war a waree fam mooy lépp lu communauté yi di def mu taxaw ci ànd ak ñoom rafetal ko taaral ko loolu moo doonoon suñu tànk ba ca topp nag ñun doomi njaareem lañ fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee bés bu mel nii moom ëpp nañu di di ko wuute dañ ko jéem a teewe ànd ceeg kilifa yi ànd ceeg comité d'organisation bi ñu jëmmal ko wan nit ne première safar ñëw na ñu waajal bésu màggal gu mag gi incha allah ci sant suñu borom ndax engagement boobu mooy wane ne jeunesse bi ñu am c'est une jeunesse pieuse c'est une jeunesse saine mais c'est une jeunesse qui engage engagée engagée dans le sens où mouridisme ku ko xam xam ne dafa woote ay principe principe yooyu jaamu yàlla da ci jiitu waaye itam liggéey daf ci topp bëgg bëgg sa gox bëgg sa dëkk lépp lu ñu yëkkati gis nga njëmbët gi nga xam ne ñu ngi ko doon def Touba jeunesse bi dañ ci taxaw set setal bi nga xam ne dañ koy engagé Touba jeunesse dañ ci taxaw loolu day wane rek ne véhicule yi nga xam ne mouridisme da koy yëkkati véhicule de développement la à la base te développement bi dafa commencé ci defar nit ki ba mu doon njëriñam pour askanam doon njëriñam pour goxam te njàngale sëñ bi loolu la moo tax chaque fois ñun autorité yi dafa am solo bépp bu ñu yëkkatee activité yu mel noonu ñu ñëw dooleel ko nu ñu mënee xam ne principe yooyu bu buñ ci géejoo nit ñi ba ñu gëm ko fonk ko di ci dox réew mi la ñu jëmale kanam prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba ku ñu fa relance jagabaw nga xam ne doo xaadim rasool yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba muritoo raw na alliance suñ bamba ku woote gis présence fu mënti doon xaadim rasool sëy kër mooy suñuy agence. bamba say xasidaay suñ opulence. suñ bamba. màggal la wootee du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool. yaay sunu autosuffisance. bamba. yow yaa jar woote conférence. bu kenn toog naan day patience. ngir bamba mooy doon xut buy yaa ak enfance bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ bamba sa mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadimu rasool ngi ni si marché bi gis ngeen tey wax ñoo ñëpp gën nañ ñëpp ñëpp di di sant sëñ Tuubaa di séddale xéewal yi bernde gars yi wane seen mbëgte fu nekk fu nekk ci lu nekk gars yëpp a ngi. on salue tous les diasporas de l'Europe et tous les Sénégalais de diaspora quoi. On est le jour de la première Safar, le jour du Magal de Serigne Touba, Khadim al Moussafa. Pour savourer la victoire de Serigne Touba, pour remercier tous les mouridismes et tous les mourides des diasporas et tous les Sénégalais qui souhaitent Cheikh Ahmadou Bamba di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe sëñ Touba kese mën lii barke sëñ Fallou moom rek a mën moom rek a mën moom rek a mën ma sant yàlla julli si yonent bi Seydina Muhammad di kontaan bu baax baax si màggal bi da xam ne ñun ay murid lan barki Serigne Saliou ñun ñëpp kontaan nan fu seenee màggal bés bi di ko defee nii di ko sellale nii ba màggal ba 18 safar ñëw ñun ñëpp ñu àndandoo dem Touba ñun chaque jour ñun marché Ndoumbé Diop la ñuy liggéeyee chaque jour ñun ñu ngi safar bàkki sëriñ yaay suñu baabu la ñun suñ Touba rek lan gëm suñ Touba rek lan gëm ki ñu dimbali ki tax ñuy dox Rafal. barke maam koy seewul xaddim yaakaar jaabi. jëf jëf sa bopp nga jëfal. kenn jëfalu fi Sëriñ Tuubaa dara. kenn jëfalu jëf sa bopp nga jëf fa yàlla jëf Serigne Touba yàlla nañu Serigne Touba dimbali. jërëjëf Serigne Touba bii réew. Bamba ko moom. réew mi Bamba mooy kii ko moom. waa njaareem Baye Fall yëpp a ngi nii njaareem yëngu na tey njaareem yëngu na njaareem neex na tey Baye Fall yëpp génn nañ murid yëpp jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba yaay sunu assurance. Bamba. say ndimbal raw ay finance. sëñ Bamba. la nu jox sunu confiance. jaajëfati Xaadimu Rasuul am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ bamba doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cadence Océan bële ku ñu fa relance ca gabaw nga xam ni du xaadim rasool yonen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba woote gis sa présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ bamba màggal la woote du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa woote conférence sëñ bamba bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa ak enfance nga leen rawoon yaay croyance sëñ mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadimu rasool gis ngeen tey njaarim yëngatu ci ñaari bis yooyee kon nag loolee nañ ci bàyyi xel xam ne fii déwénee ñu mën ko waajalaat ba yu ñu mën di ko dem ndax loolu dafay baax ci dëkk en di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ni ba ma nekkee maire tombé naag ñetti centenaire mooy sant centenaire commune sant centenaire jumaa ji waaye sant bu ma ci gën a neex may bu sëñ bi bàyyi ko dem Touba biir sëñ Touba moom loo ci def da ngay yokk rek ndax man yàlla def na ma man taalibe laa rek aw ma dara mënuma ma dara taq ma dara waaye damaa jël sama bopp rek dégg ko sëñ Touba nekk taalibe moo tax yàlla mu ñuy dimbale li ci bari ñu ngi koy jéem ci dëkk bi sunu borom ñu koy defa sutura te loolu du dara looy sàkk lu baax rek ak bëgg lu baax ak nekk taalibe xam ne bis bu gàtt mu ngi ñëw xàpp gi dina deñ waaye taalibe gi moo fi dul jege di ñaan yàlla rek naan lañ def taalibe ñun ñëpp ndax xam ne ci lañ mën am te am ci suba waaye bis mel nii xam naa jàpp nañ ci ndax comité d'organisation bi dina ci ñëw waaye dañoo war a xam ni bis bi tey jii ñoom ak ñun ñoo ci yem ndax tey fa ñu nekk fu ne sëñ Touba lañ fay dundal ak xasida tey fii tamit ñu nekk fii la sëñ Touba presque fii lépp fii la ko fi defee kon di leen wax tamit ñoom nañ jàpp ci bis bi bu baax a baax a baax ndax bis yi tamit moom rek lañu am ndax la ndar am euh, Dakar am ko Mayombe am ko Grand Sama am Grand Bassam ci Côte d'Ivoire am ko ñun suñu mbokk ñi nga xam ñoo fi nekk di ay ay ay murit di ay taalibe di leen lancer appel ni bis yi mel ni nañ ci jàpp bu baax xam dëkk bi amuñu lu dul ñoom te ñoom am na lu dul ñun ndax fa nu nekk ñun lañ fa nekkal ñun fii lañ ñoom lañ leen fi nekkal di lancer un message di leen sant ñoom it di leen gërëm ndax gis nañ seen taxawaay gis nañ tam seen jàpp li nga xam ñu ngi koy def dëkk bi di gis seen financement ci njaboot gi yàlla na yàlla defal tawfeex en tout cas di kontaan lool di sant waa Njaaréem yëpp xam ne lii moom lañ am nañ ko téye te te duñ xam ni sëñ bi lii rek la am ñu ngi sant yàlla baax na bu ñu démarré ba tey kenn gën a wu fii kenn am benn jafe-jafe ci mbooloo mi toll ni loolu sëñ bi rek ko mën ren dañu am fukki at ak bismillah ko 2009 lañ ko tàmbali ba léegi kon muy fukki at ak juróom yoo xamante ne bi ñu koy amal liggéey bi fii ci Ndiar ci ndigalu nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Lamine a toogee jotaayu sëñ ginnaaw biñ ci di nekkal fi sëriñ bi fii ci yëg-yëgu sant suñ Tuubaa ndax mën nañoo wax ñaari fi la lépp tàmbalee kon suñ demee ba tàmbalee mu dem ba at ñu lépp di ko def loolu taw feex la ak waaye kenn ku ne xam na ni la sëriñ bi sant na ko yàlla suñu borom kon benn fan bi wàccaay rek ak teeru li nga xam ne moom la wàccaareem li ma leen wax mooy ñun man na sax wax ne suñu jaan wàcc na ndax fukki at ak juróom ñu ngi koy taxawu mbir mi dem na ba màgg nag dem na ba ëpp ñu doole xam naa ne nag dina laajaat waxtaan bu baax ndax li ñu sañoon buñ sañoon duñ def dara loo xamante ne bi dinañ ci gis ñuy xebal suñ sañoon lépp dina jaar ci yoon loolu nag seenu bëgg la ak seenu xër rek waaye ñu ngi soññ rek ñi nga xam ñooy autorité yi nekk ci dëkk bi rawatina ñi nga xam ne ñooy waa administration ngir ba bis bi bu ñëwee ñu gën ñoo taxaw bu a baax ndax lott nañ ci bu baax ci wàllu sécurité at mu jot dañuy def ay jéego yu baax a baax préfet bu bi sax tane ndax jot naa def ay jéego waaye ba léegi ci wàllu sécurité niñ ko bëggee dëgg nga xam ne lépp dina am ci dal amaguñ ko benn yoon saa su nekk dañuy mel ni dañuy dañuy dañuy bàyyi ba ba waxtu bi soog a ñëw loolu nag am soññe la ngir autorité yi ñu xam ni lii bisu njaareem la ndax ni ñuy defee ni ñuy waaje yeneen bis bu ñu ko amee dem yóbbu fa sécurité bu doy mën nañ koy def ci bis bi donte ne sapeur ñëw na police ñëw na waaye liñ soxla woon dëgg-dëgg a ko saa su nekk daal day mel ni taxawaay bi seen wet day des waa jaareem nag moom gàcce ngaalaama ak kuréel yëpp ku ne gis na ni kenn ku si ne na nga ca mën a jàppe noonu nga ca jàppe loolu nag tawféex la goo xamante sëriñ bi moo leen ko jaral sëriñ bi leen ko jaral nag dina ah, leen fay lu kawe seen jot waaye na li leen waroon def nañ ko fukki at ak juróom fexe nañ ba waggar liggéey bi fexe nañ ba loo xamante ni bi luy nuru wàllu wàllu politique wala lépp loo xamante ni bi wàllu la fexe ba def ko ba loolu lépp génn ci ñun nag mënees naa wax ne liggéey bu day am fu mu am ñeneen ñu ko yóbbu ndax kenn naa ne dina laaj sax loolu nag nañ koy bàyyi loo xel waa Njaaréem ndax dëgg-dëgg liñ bëggee bis ba ko taxaw ndegam kilifa yi ga xam ne ñoo jiite administration mënuñu koo jëlee seen bopp ñun nag dinañ xool ne leen ndax wàllu sécurité dafay am ndax mbooloo mu toll nii te amul benn matukaay boo xam ne ñii autorité jël nañ ko loolu mbir moo xam ne mbir mu ñu métti la métti nañ ko loolu ba waa Njaaréem nag mu gàtt